ngeen jëf Moustapha dañoo yéex a jóg ne bu ñuy campagne boobu fekk na ay nit jóg ba pare di wër di ñu gannaaw di dem ci daara yi ak ci jàkka yi di wax ak nit ñi ak di leen xutba naan leen ngir ñu wotenoo ci référendum yi ñaareel ba Moustapha Cissé Lo moo di fu ngeen dégg ne wuy jë moo fa gañe ci référendum yi bu ngeen seetloo barab boobee li mu am ci ministre am ko ci ay directeur ak boroomi ndombay tànk ci gouvernement bi Touba amu ko Marie Louise Ndiaye ak Ndiaga Ndiaye bu l'observateur ne lu waral gaañ yi bëgg jël défaite bi sippile ko mu ne leen du dara lu dul Moustapha Cissé Lo la laru bàjjana mooy noppam waaye li ma def ci campagne bi kenn defu ko ci jël naa sama juróomi million dugal ca ñaari comité bi laa ko jox ñett yi ma séddale ko ñi nga xam ne jege ñaale Macky Sall la ñoo te mënoon na ma caabañ a fekk ndax du man rek maa nekk ca Touba am nañu benn bi ku sama fetal dóor ci ngelaw li tooñ nga ma moom fetalu ma tey fetalu ma ëllëg waaye ku nekk nag sa tey moo lay wax sa ëllëg xam naa léegi ni may def moo di dootuma wootee wooteeti ca Touba damay transféré wu dem ca kër Mbari ga ma juddoo baa ma dikk dakaar di fu woote baa ma dem ba Mbour baa ma dem ca Tivaouane di fu woote waaye Moustapha Cissé Lo ma ngay wootee Touba loolu c'est fini kenn dootu ko déggati Moustapha Cissé Lo nañu te nag na leer bëggatuma gis benn mbàkke mbàkke buy ñëw di ma seet si nan ma dama am gàmmook dama am màggal dama bëgg nga jàppale ma ci ku ñëw dootuma la jàppale bu kenn ñëwati ci man it di ma wutloo ay passeport loolee ci assemblée nationale yër leen xët mu njëkku la quotidien Ousmane Ngom ndombal tànkul député la mu amoon ci assemblée nationale yéen kaay bi nee nañu tekki na ko ba delloo ko seeni borom la tax mu tekki ko Ousmane Ngom ne ba muy doon député ci liste parti démocratique Sénégal la ko doone bi ñu yegsee ci référendum yi parti démocratique Sénégal mu di partem ñoom noo la ñu waxoon ci référendum yi moom wéy la wax waroo googee lay bañ ba tax mu delloo leen seeni yëf le quotidien nañu léegi nag Mamour Cissé njiital PSD jant bi moom la ab jantam nar a fenk ci assemblée nationale ndax mooy wut Ousmane Ngom populaire nañu maître Ousmane Ngom démissionné na ci assemblée nationale Biram Place Felo ko dëggal xibaar bi mu di maître Ngom démissionné na ci assemblée nationale Mamour Cissé moo koy wóotu kii di Alioune Sow it ma nga ca el ba la tribune nañu am na luy xeeñ ne maître Ousmane Ngom ak ni muy doxalee dem na fekki Macky Sall di ko tuba ñu ne dee tawaay mu bokk ak gis-gis ci référendum yi ñu ne dee tawaay mu démissionné ci assemblée nationale yéenekaay bi di laaj est du moom Ousmane Ngom mooy dooni ministre intérieur ministre teewal ay résultats ak ay taux de participation ci référendum yi jëfam joojee ñi fare ci pouvoir bi ak ñi fare ci kujje politique gi daal nañu ko bu baax a baax populaire nañu kenn ca mu di Mbaye Ndiaye moom nee li mu mënatoo comprendre ba léegi moo di Abdoulaye Daouda Diallo ak waxam joojee ban njariñ la gisu ca benn sens boo dee kilifa nekk cim réew dangaa war a respecter les valeurs grand place ñu Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur ak sécurité ko waroon a siiwal Abdoulaye Daouda Diallo dikk def ko yéenekaay bi di laaj lu waral mu doon parax-parax moom Abdoulaye Daouda Diallo ak di gaawtu bay def yoonam nekkul Walf Fadjri nañu te nag lu ngeen ci xamul moo di li waxoon yépp moom Abdoulaye Daouda Diallo jëm ci taux de participation bi ci référendum yi loolee lépp waa cour d'appel dañu ko weddi référendum yi enquête yéenekaay xëy ko tudde ay présidentielle anticipée ak la ca mën jàngat yéenekaay 357 412 wéy la ñu wax 807 255 non la ñu wax Le Soleil nañu président Macky Sall moom li mu wax moo di rafetlu bu baax a baax maturité mu di mat ak nite gi nga xam ne nit ñi ànd nañu ak moom ci référendum yi Le Témoin nañu référendum yooyee jeexagul waa non ak waa wéy ñoo nga ca troisième mi-temps bu référendum yi ku ci nekk di ñor di ak di xëcc ak di lawlawal waa gor ca wax ja li ñu jàpp moo di référendum yi tegul ci yoon waa APR jàpp ne waa foron non dañoo boolee ñàkk ba di ñànke Parti démocratique Sénégal Le ne ay nduxum yu ci référendum yi ba noppi di tuumal Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur Sud du Quotidien nañu waa Parti démocratique Sénégal du ñu yem ci loole nee nañu dañuy saisir Assemblée nationale ci question orale ngir mu enquête ba xam xaalis bi ñu financé ci référendum yi ana fan la jógee Grand Place dañu nee nañu it danañu saisir OFNAC saisir leen sunu lamb te téye ko ba mu dëgër Moustapha Gueye Tigre de Fass ba woon moom la journal bi xëy dalal Moustapha Gueye ma ngay xool ndombal tànk Alioune Sarr njiital CNC ndax nee na Alioune bu fi jóge moom Moustapha Gueye bëgg naa doon président bu CNC bi